càcc parfum bi nga xamante ne dañ ko koo jiiñoon ñu gis ni bi loolu amee ñëpp yaakaar nañ sax wax ji jeex na mais daanaka barki démb la ñu jékki-jékki à nos grandes surprises ñu ne dañ ko arrêté ci wàllu diffamation euh, yàlla sunu borom nag dogal àtte nañ ko ba daan ko daanaka deux ans yoo xamante ni du ko tëdd waaye suur si lay nekk amaan ko li nga xamante ni moo di cinq cent mille ci noonu nag lay dalalee kenn ci waa këram fas yéene Cheikh ak moom waxtaan Cheikh bi maa ngi lay nuyu. Euh, ku baax ki maa ngi lay siyaar bu baax di la fay di nuyu site bi di. cent vingt et people. Mhm. di leen sant di leen gërëm lu bëree bëri waaw. Mhm. Mm. am na solo sëñ bi. Mm-hmm. sunu mbokk daara. Mm-hmm. di Gris mm-hmm. yàlla dogal am benn natt bu dal ci kawam. dëgg la euh, tey bala maa ñëw ci natt bi. boo ñu doon wax Gris ci nitu daara. mooy kan. Gris leen laa la mën a xamal ci moom mooy nit la ki nga xam ni nit ku baax la nit ku dal la nit ku yaru la ndogal nag moo ñëw waaye dañuy ñaan suñu boroom dàqal ko ndogal maanaam. mbir yi sedd guy ci moom daal waaye nit la koo xam ni ku baax la daal xam naa ni nitu daara la nit ku baax la. nekk nit koo xam ne daanaka dañ ko yar ci diine. Mm-hmm. chaque fois kenn du ko dégg ci lu dara. Mm-hmm. Euh, lu mel nii bu dalee ci nit koo xamante ni kenn daawu ko dégg ci dara. Mm-hmm. Euh, naka nga ko jàngatee. ni ma ko jàngatee mooy damay jàpp ni ndogal la bu sunu borom wàcc ci kawam rek ndax wàlliw sax yàlla da koy nattu. waaye dañuy ñaan. sunu borom gaaw teggil ko ko rek. ci kàttanu sunu borom. waaw loolu laa koy ñaanal waaw. d' accord am na solo. Euh, ma ñëw ci li nga xamante ne nag moo di wàllu ñaan. Euh, ñaan buñ ko waxee dafa am ay porte dëgg la port yooyu nag bi ci njëkk mooy. Mhm. wàllu médecine traditionnelle laa bëgg ñu waxtaan ci. waaw sëñ bi laaj nga lu am solo. wàllu médecine traditionnelle coow li bari na sëriñ si niy wax bari na mais wàllu bio ak médecine lu jafe la. Mhm. coow li nag bari na fajkat yi bari na mais xam-xam yi bari na tu wuute wàllu médecine dina am yu ma ci baaxee doomu aadama yi. ci wàllu gastrique ci wàllu siti ci wàllu hémorroïde ci wàllu xeetu feebar yu bari yoo xam ni dafay dal nit ñi bi ci jiitu muy wàllu hémorroïde képp koo xam ne dal na la jëlal garab yi ma lay bëgg a wax amal xasu nem neb den gi dëkk ak njàndam muy ñetti garab yi nga fexe ba jël leen xooj leen di ko jël suba ak ngoon mais buy jël poudre bi da ngay am seen xas rek nga di ko jël suba ak ngoon hémorroïde bu mu fekk ci yow moo xam bu mag la intérieur la wala extérieur tàggoo nga ak moom bu dee picc biy génn sax bay génn deret nga xam ne booy dem tuwaale dafay metti soo jëlee ñett yooyu suñu boroom mën na la tàggaleeg feebar bi benn wàllu gastri bari na ñu mu dal gastri nag bu ma ko waxee mooy ulcère ak estomac kooku pour nga mën ko faj da ngay xam yi ngay maytu ba pare yi nga war a lekk ak yi nga wërta lekk mhm. képp koo xam ne da nga amee gastri moytul yi ma lay bëgg a wax buy faral di jëfandikoo pom mm-hmm. ndax dafa am gaas pom waaw buy jëfandikoo lingom dafa am acide mm-hmm. mais lan moo baax ci gastri da ngay am garab gu ñuy wax ngeer nga am ko wal ko ba mu nekk sunguf mm-hmm. nga laaj ci waat garab gu ñuy wax fayaar moom la mbaam àll di dunde kooku waxuma la waxuma la feebaru xol mais bépp feebar boo am boo xam ne rek góomu xol la loolu da koy faj bépp góom bu mu mën a doon da koy même boo koy jël suba ak ngoon lii ma lay bëgg a wax da ngay jël sungufu ngeer wol ko ba mu nekk sunguf nga boole ko garab gi ñuy wax fayaar moom rek la mbaam àll di dunde nga di ko jël suba ak ngoon bu la neexee boole ci lem bu la neexee meew bu la neexee mëqal naan kooku ba koroog ngay génn àddina feebaru gastri loo lekk dana rees doo am problème mu digestion ndax da nga gis nit koo xam ne sax day dem ba ci biir lekk loo xam ne léegi day am problème soo amee estomac feebaru gastrite da ngay moytu diwtiir maytu kafe gu fort maytu excitant yi maytu lu wex maytu lu forox ñu bëri xamuñu loolu doo dégg sax ñu bëri di la ko leeral dañ naan la garab gi day faj rek mais da ngay xam li nga war a lekk ak li nga wërta lekk mboolem lekk bu waaw parce man maa ngi doog xam ni pom baaxul ci ko am estomac ñu bëri xamuñu loolu parce que dafa am gaz gaz boobu boo koy boo boo amee gastrite di lekk pom day créer ay ay ay géex yoo xam ne waroo géex man li ma wax dama ko xam day pare day créer ay problème ci wàllu digestion bi. man maa la ko wax. parce que dafa am gaz. lingoom dafa am acide. gis nga li ma yooyu baaxul ci gastrique. moo tax gastrique li mu gën a soxla mooy loo xam ne wéexul seetlu bu baax li ma la wax. li ma la wax nag dara gën ko ci amal sungufu ngeer ak fayaar su àndeek lem mu gën a am doole su àndeek meew mu gën a am doole. su la neexee nga koy naan trois fois par jour une semaine laa la may. lu la neex lekkal. waaw man maa la jox loola. bu dee wàllu siti coow li bari na lool lool mais siti pour nga fajal ko nit di nga composé fukki garab ak ñaar yu bokkul. Hmm. yan garab ngay composé da ngay wut xasu wen wen senjeng sulukum rëb-rëb nga dem ci fayaar nga dem ci déngi dëkk nga dem ci ngollañ nga dem ci xaax cooy door a ñëw ci farxañ bu ci ne nga jël ca tuuti nga togg ko ci cin togg ko togg ko ba mu bax benn yoon bu baxee rek teggil boo ko ñu liggéey ñeenti litre ndox da nga ciy dolliwaat litre bàyyi ko bu seddee nga di ko naan ñetti yoon ci bis bi soo añee soo reeree soo ndekkee garab gi du feeñ ci sa yaram te dana da nga koy saw te doo am benn yoon doo seere di nga mën a dem toilette deux fois ci jour bi boo xëyee dinga nga dem toilette noo seulement balaa jant soo di nga demaat toilette nit bu wéree dëgg war na dem toilette ñaari yoon ci bis bi muy suba gi ak ngoon gi man maa lax loolu nit koo gis muy seere lu bari rek xamal ni wérul seere rek feebar la dinaa lañ jox tamit loo xam ne lu yéeme la ci wàllu médecine nga xam ne bio lu nu jàng la loo xam ne boo ko teelee jël sax dana la dimbali ba cancer da nga ciy mucc barke salaatul faati lu leer li may wax nii bind ko nga denc ko man maa la ko wax muy yan xob xobu karasol neel benn xobu fuddën yaa ngi dégg li ma la wax xobu darkase yaa ngi dégg ak salaanu olof booleel xob yooyu ak bu fuddën ak bu korosol nga baxal ko ba mu bax nga bàyyi ba mu sedd nga di ko naan bépp góom bu mu nekk ci xol bi da koy wér feebaru xol doo ko mës a amit cancer sax suñu borom mën na la ci musal bio dafa nekk loo xam ne lu ñu xam la mhm. loo xam ne du lu ñuy làmbatu mhm. yow nag yaay xool mboolem feebar boo xam ne jaaxal na la soo nu ko waxee te nu xam ko maanaam nan la ci wax lu leer. d'accord am na solo. waaw euh, ma ñëw ci li nga xamante ni moo di ilmul asraar. waaw doon xam-xam boo xam ni. Mm-hmm. bari na ñu koy wax. waaw waaye li ma dégg nga expliqué ma ko ci ay faram-pàcce. Mm-hmm. yaakaar naa fii la mburum yi xoyam xoyamee. asraar coow li bari na. tey ma may la ci benn secret sëñ bi nga ma wax la benn secret tey boo demee ci sëriñ mu bind la xaatim xaatim ba damm doo dund bala ngaa dee da nga mm-hmm. yàq na sa àddina dégg nga bu baax. sëriñ bu mënul asaraar di ko woote. nga dem ci moom mu bind xaatim jox la xaatim ba bu demee lor na la moo tax ñi xam secret asaraar dëgg dañuy toog rek ñu bind lu ay lim ci ay tur rek saa di sangu waaye ñemewuñu xaatim xaatim sëñ bi ku la koy jox ku ko mën la war a doon ku mën asaraar ku mën xam-xam. ku yor xam-xamu batuuta war a ku yor xam-xam lay doon mm-hmm. ñaareel ba. dinaa la may secret ci alxuraan képp ku bëgg a ubbeeku bindal li ma la wax da ngay bind alam nasara juróom-ñaar fukki yoon 70 muy adadu kun lillaafi xuraysi 70 sootu waqiyaat 70 fi di jiha bi ne ci tabati yaddaa 70 ñaari zuy na moo am ci alxuraan am na bu ne ci aali imran am na bu ne ci sootu baqara nga bind ko bu ci ne juróom-ñaar fukki yoon mm-hmm. bu ci ne adadu kun la muy 70 nga def ci parfum yi ma lay wax zafaraan malwird miski aïcha aarona moom nga ciy def nga def ci benn cuuraay muy cuuraay libaan nga sangoo ko 21 jours di nga am ubbeeku nit ñi daan la sopp di ñu soppi ndox ak xorom soxla boo am mu faju loo sumb mu antu kooku ubbeeku la ma ma yàlla beneen ubbeeku 114 waqiyaat soo ko bindee def ko maxtum kenn dootu la yërëm ci kaw suuf soo ko bindee 66 def ko ndomba loo songu daan ko soo ko bindee 55 adadu mujjibu def ko saafara bunt boo fëgg mu ubbeeku muy ñetti bunt yu bokkul ci wàqiyaat 114 yi bu nekkee sa téere dënn nii ba koroog ngay dee soxla boo am faju man ngaa bañ yor sa poos dara soxla 1 million am ko ci 2 jours man li wax dafa leer mm-hmm. wàllu xam-xam bu ñuul sax mi ngi fi man def naa mali gëstu to dem ci waa Nigéria yi jël ci ñoom muy taalibe Baay yi mm-hmm. muy Awsa yi mm-hmm. def Mali def Sékou yaa ngi dégg def Bandiagara mm-hmm. jóge fa def Guinée Bissau pour gëstu xam-xam bu ñuul xam-xam bu ñuul même bu la neexee ku ko soxla nga ñëw seet seet si sañ seet di naan si fii Yoof almaxtum yoon boo ci bëgg mën nañ la cee jox bunt bu la ci neex man maa la wax lii waxum damaa jëlal wàllu asaraar mais wàllu ubbeeku tamit dinaa la ci waxaat beneen képp ku bëgg ubbeeku bu gaaw ci wàllu alxuraan bindal 12000 basmala bisimilah rahmaani rahim nga bind ko 12000 12000 nag mooy fukki junni ak ñaar nga def ci juróom-ñaari parfum yu amul alcool nga xool li ma la wax nga sangoo ko ba muy fukki guddi ak ñaar bunt boo fëgg suñu borom ubbi ko kooku ñaar lu ci ëpp ñi nekk Torino waa bitim réew yi ni moom laa koy liggéeyal ñoom bu buñ ma gisee daan xam. Torino laa wax Italie ñoom bu nu gisee daan li kii da li mu wax lu leen Torino mbooleem ko fa nekk rek am fa tur wala nga am fa baat xam na ma su nu gisee interview bi dañ li kii même ku ma gis sax ci interview yi da nga ne ah kii da yàgg nañ koo xam ci lii man naka jekk ci wàllu asraar ak xam-xam rek laay yëngu mosuma yëngu ci leneen nee naa la coow li bari na mais la dongul mën nga cee def lu ne ma mayaar la benn sec boo am faju kàkkatar waxuma la buy dund sax beneen affaire la mais kàkkatar kese jël ko nga bind juróom-ñaar fukki samadu samadu bu ne nga ubbi saat ga yaatal ko dugay sa tur nga boole ko kaafun kaaf ak saafaraan ak maawi wérd puudaru or puudaru xaalis loo xëccoo examen boo dem at mi dofis ngay def kooku maa ko maye gratuit kooku boo ko defee boo ñaanee visa am boo defee examen dofis ngay am sëñ bi faw nit ñi bàyyi mala yi mala yi dafa dañoo am secret. d'accord dinaa yi. mala yi dañu mala yi dañoo am secret de. d'accord yu am li tax waxtaan bi neex mooy. waaw eh, tey wax dëgg yàlla. Mhm. Eh, spécial promo nga def. dëgg la parce que gisuma fi maa fi mën maa fi lii. tey da jël lépp di ko maye. Mhm. Euh, ma ñëw ci loolu nga wax léegi. Mhm. may fàttaliwaat adresse bi Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum. Al Maktoum Yoff mu ngi nekk fii Yoff ci ginnaaw xabru bi boo wootee numéro téléphone yaa ngi noonu di daw ci service euh, commercial bi ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu rabu àll yi rabu àll yi des fois nga gis rab boo xam ni dóor rek nga ñu xalaat wala rey lekk. non nekkate am nañu ay secret. yi sëñ bi secret yu yéeme dinaa ci ñëw. gaynde boo amoon tey doom juy tiit jëlal deru gayle karawam boole ko karawu xale bi ëw ko téere xale boobu jinne du ko fàdd man maa la ko wax loolu du tiit du jomm du gis lu mu ragal. Fawzeyni gaynde parce que gaynde day gis jinne lekk ko te jinne mënu koo gis. man maa la wax loolu. loolu gaynde gaynde dana gis jinne te jinne mënu koo gis man maa la gaynde day gis jinne fàdd ko man na dal ci kawam te jinne mënu koo gis man maa la wax loolu kay loolu doo dégg ku la koo fi wax man maa la ko wax <laughs> kon mosoo xam loolu <laughs> sëñ bi gaynde dafa gaynde gaynde beneen affaire la mm-hmm. gaynde sëñ bi même yow der bi boo ko takkoon rab sonal la jarul ngay dem fenn doo tiit doo jommi rab ak jinne mënul ci yow dara gaynde moo mën a gis jinne lekk ko mais jinne du mooy daw dal ci kaw gaynde loolu mënul nekk. nga ni ko am rab. képp ko rab sonal dëgg takkal ko deru gaynde su ko neree dépassé nag ba jaaxal ko na woo sëñ Cheikh Tidiane Sy ci numéro yi almaxtum fi nga toog ngay toog mu def li muy def ci kàttanu yàlla nga juboo moom dégg nga bu baax li ma la wax. rek laay gaynde dafa baax ci wàllu rab ak jinne li ma la wax du dañ. gaynde day gis jinne dal ci kawam mais du jinne mooy ñëw dal ci kaw gaynde loolu laa la wax moo tax boo amee doom sax lu mu tuut tuut takkal ko deru gaynde dootul gis lu mu ragal du tiit du jommi ñu ñëw soo bëggee wàllu nguur ba ci nguur wala ngay xëccoo dara mm-hmm. danaa la may tuuti ci deru bukki mm-hmm. waaye su boobaa bopp bukki ak bopp golo laa lay wutloo nga indi ko fi mm-hmm. man maa la wax nga wax ma li nga bëgg a nekk ci kàttanu yàlla li ngay xëccu bëgg ci feeñ su suñu borom dana la ci yëkkati ci dara yooyu yonent bi parce que bukki bakkan bi lu mu fóon da koy yóbbu bukki ñaaw na loolu waaye bu jaaroon fii nit ñi mën nañoo bàyyi li ñuy def topp ko kon am na lu nekk ci moom. alal ju gaaw. alal ju gaaw kese kese mën nañ la ko liggéeyal ci bopp bukki ak bopp golo benn alal bu ñuul laa wax de. mën nañ la ko liggéeyal ci kàkkatar. lan mooy alal bu ñuul. <laughs> alal ju ñuul dafa am faw ma leeral la ko bu dee alal bu weex nga bëgg bu bu set da ngay dem ci sóotu waqiyaat nga bind ko 114. muy limu jaam yi jàpp saaru alxuraan yi 114 maanaam téeméer ak fukk ak ñeent nga wut leget bu yaa boo mënta am leget kël lu new kël lu new sax moo gën mais kël lu new dafa jabe mais nga dem rek wut leget benn la leget bu mag nag boo xam dina def 2 litres ba 4 litres nga def cent 114 waqiyaat surtout waqiyaat nga bind li laa fi xuree si 70 nga bind alam nasara 66 muy ñetti lim yu garaaw. dégg nga li ma wax. yow rek nga def ci juróom-ñaari parfum yu bokkul nga def ci poudre or ak poudre xaalis ak cuuraay libaan ak juróom-ñaari parfum yoo xam ne amuñu alcool nga sangoo ko vingt 21 jours boo paree nga natt sa poids ba xam ni mu toll nga génne ko ceeb ak dugub ak mbokk nga saraxe ko comme tey sa poids bu nekkee 60 kilos da nga koy diviser waat ñetti cër cër bi mboq cër bii dugub nga séddale ko ay nit sëñ bi. da nga am fàqu ubbeeku boo xam ni soxla boo am dana faju te da nga xam ne yow lii di ñëw ci yow ndimbalu suñu borom la waaye sa wërsëg tolinu man man boobu mooy alal ju weex boobu mooy alal ju weex ji alal bu ñuul bi nag dafa am nit ñu ko bëgg mooy comme genre yi mhm. am na yoo xam ne dañuy wax jeleñ te xamuñu lan mooy jeleñ am na jeleñ yoo xam ne deret moo koy doxal ak sàngara man sama ngor mayuma may yor yooyu jeleñ gis naa ko ma ni su ma ko bëggoon ñu jox ma ko mais soxlawu ma ko 1992 su ma bëggoon Jeleng rek alal bu ñuul am naa ko Mali ba ma Bamako barke sëñ Touba li ma leen lu leer la ñaareel ba soo bëggee alal bu ñuul jëlal bopp bukki bopp golo nga jël kàkkatar ance kàkkatar ance laa la wax de même bu dee baax na nga jël 18500 suñu xaalis lëmase ko perkaal ak kàkkatar boobu ba tey nga seet déem goo xam ne dafa ne ci kaw xorondom nga gas ko bisu altine jënd ko sankal ak meew ak wëtteen ak faatiya nga demaat seetu sump gu ne ci kaw xorondom nga gas ko bisu altine wala alxamis jënd ko dugub ak meew ak wëtteen ak xaalis nga dem seetaat guy gu lax soog daqaar nga jënd ko meew ak faatiya nga dem weer seetiwaat tobb new nga jënd ko ginaar seqtiir boo gisee tobb gi nga yëg ci kaw rendi ginaar gi ci kaw balaa pët pëti nga dagg tobb bi kooku boo ko sangoof nu ne la la alal yi ñëwee nu ne bunt bu ne ngay ubbeekoo kooku sëriñ yi xam ñaan xam na ni secret yooyu secret alal la man maa la ko wax waaye doo ko sangat koo xam ne làkkul ñeent fukki at hmm. ndax mbir yi day sottee ko rek bu ko àttanul day dem hmm. li ma la wax nii du dañ hmm. déglu nga li ma la wax bu baax bu baax a baax boo soxlaa nguur jëlal picc rab bi nuy wax Moussa Djibril mooy picc bi doon ànd ak yontu yàlla Souleymane taan yóbbu lettre Souleymane ba ca palais Balkis ba mhm. Moussa Njuburi xam nga ko mhm. boo ko jëlee nga bind sóoratu mulk mulk ku ne xam na ne affaire nguur la nga dagg xaati bu bi dagg ko juróom-ñaar yoon mhm. lëmasi ko bopp musaa Njuburi bi bàyyi sàll bi nga bind sóoratu mulk nga sangoo ko ñeent fukki fan moom it boo ko defee sangoo ñeent fukki fan nga jënd benn ginaar seq ak benn naat seq bi nga jox ko góor naat bi nga jox ko jigéen <laughs> mais naat bi boo koy jox jigéen da ngay rocc ci dunk yi juróom juróom benn dunk naat seq bi boo koy jox ko góor nga rocc ko benn benn dunk boole juróom boo ko boole juróom dunk la nga takk ko bàyyi ko sa walis wala nga bàyyi ko sa néeg buñ doxee balaa am ñeent fukki guddi da xam ni ubbee am na secret am na benn ah, <laughs> kon da ngaa xamul woon moo tax <laughs> sëñ bi képp ku ne Europe yàgg fa sonn te mënoo am dara gaawal nga ñëw seeti sëñ seeti naa si almaxtum dinaa la wax lu wér ci kayit <laughs> li laa fi xuree si ngay bind juróom-ñaar fukki yoon boole ko ndoxum géej ñan la fay wax banni Israël mooy juif yi ak nasaraan yi ak yahudi mm-hmm. lii laa fi xuree soo ko bindee juróom-ñaar fukki yoon da ngay bind cent 1111 nga jox ko nit ki nga xam ne Europe la ne. te bëgg kayit wala bëgg faa ubbeeku wala mu yàgg fa te mënu fa am dara soo ko joxee bu ko sangoo bis ba bis delsi su amul barab bu mu ko sangoo ci kàttanu yàlla na koy diwoo suuba gi ak buy tëdd sëñ bi lépp lu muy sàkku ci réew moomu yàlla dana ko yop dana ko jàppandir man maa la wax loolu lépp lu muy sàkku ci dëkk ba mu ne sunu borom dana ko jàppandil isaa jaa nga koy liggéey ak li laa fi Quraysh man li ma la nii lu leer la mhm. benn nit koo xam ne dafay am alal ba tey ci wàllu asalaam muy yàqu bindal inna haza la risquna ma lahu min nafaadin aaya boobu 1111 nga di ko sangoo bisu altine wala alxames alal ji dana yokk te du yàqu alal ju ñëw rek dina dem ci farata maanaam mala yi dafa am secret yu yàlla def ci ñoom gis nga deru mbëtt kese mbëtt boo ko adatee 92 la Muhammadu boo jëloon deru mbëtt tey bu ko suuroo njibar gun la mas a def ci kaw suuf dana dañ kon mbëtt am na njëriñ mhm. nit ku amee mettitu bopp xamul ban façon mettit la muy góor muy jigéen na jël deru mbëtt mu def ko ci taal mu suuroo ko tàggoon naa ak mettit boobu nit ki nga xam ne dafa am soxnaam di sëy ak moom te mësta yëg bànneexu lal na fexe ba am graisse mbëtt bu mu ci bind benn tur na ko fexe yow ku góor ki nga def ko sa kanam bala ngaa ànd ak sa soxna ci kattanu yàlla di ngeen di nga ci yëg ci sëy ba bànneex te kenn du kenn du mën a dox sa diggante sa jabar maanaam sa jabar benn góor mënu caa dem ku dul yow lu garaaw laa la loolu maa la ko jox may la ko nga xame pour ñëpp jot ci comme tey nga am sa soxna bëggoo kenn dem ci moom te bëgg nga tamit heure booy sëy maanaam sëy bi am bànneex ndax sëy taxut am bànneex am na wala amul mm-hmm. mën nga sëy ba noppi te yógoo ci bànneex kon may naa la secret ngi noon gëre su ma të ngay wut jigéen ñu baree ngi nii di ko jënd jigéen ndaw si nag boo xes boo bu la ko njëkkee jënd yow ku góor ki laa ilaha illallah ba def ko ci kanamam nga ñëw ànd ak moom jeex na boo amoon téeméeri soxna yi doo ko yemale kenn parce que moom xam na secret bi te xamoo ko yow da ngay yàkkamte aay jot sax ba nga dem ci moom man nga dem sax bay sàcc aayu kay di ñëw ci moom maanaam man li ma lay wax lu leer laa lay wax nee naa coow li bari na waaye médecine ak wàllu asaraar sëñ bi ñu ko yàlla jagleel bari <laughs> Ah. site bii nag day site boo xam ni danoo am njariñ moo tax ma sàkk woon pour def ak ñoom waxtaan bi parce que jamono ji dafa toj nit ñi ñi nu nax dafa bari surtout ment waa bitim réew yi da ngay gis koo xam ne dañ lay yónnee sa alal su la woowatee doo ko jot xam nga loolu baaxul wala la nga koy wax du ci gis dara parce que li ngay def tegu ko ci yoon mhm. waaw d'accord am na ñoo xam ne dañu dugg ci métier mi te mënuñu asara dañuy wut xaalis mhm. mais lii ñu la jox man lii ma la wax nii xam-xam yu leer la ci wàllu médecine ak wàllu asalaamaaleykum yow damaa maye pour nit ñi jariñu mhm. képp ku nag bëgg nag ñu defal la. wooteel ci numéro yi boo ñëwee yoof ci sëñ Cheikh Tidiane Sy Al ay waxam sax bëriwul moom jëf rek la xam. Mhm. ba ci wàllu mbërul am dinaa leen ci may tuuti bëri na mbër yu mu samp te boolewu ci ay wax du dem stade du génn télé. Mhm. te mi ngi toog fi mu toog. béjjënu kooba la lay laaj benn béjjënu kooba benn seru rabal benn seru njaago benn leget ci kàttanu yàlla ci daraja yonent bi bu la defalee samp yi mu lay defal yàlla mën na laa dimbali ci lu bari de moom waaw bis bu la defalee li lay defal yàlla mën na laa dimbali ci te ma wax la beneen secret képp kuy wut këyit bëgg say këyit gaaw te ma joxe naa ñaan gi del faral di saraxe picc di ko def fukki picc ak ñaan nga koy jënd di ko bàyyi muy dem kooku dana tax yow mi nekk Europe lépp looy sàkku ci kayit day gaaw a dugg sa loxo saraxu picc wala nit ki nga xam ne caabi da koo féet féete ginnaaw. seen seeti daal ñëwal seeti seen seeti daal si almaxtum dinaa leen may garab gi nag mais yombut a am xunoot ngay bind juróom-ñaar fukki yoon nga seeti garab goo xam ne nit da cee mës yëg daanu dee man xam-xam yu leer laa lay wax garab goo xam ne nit da cee yëg daanu dee bu nit ñi ñëwee nit ka la ñuy yóbbu wala garab ga nit ka la ñuy yóbbu ba fa garab ga mm-hmm. seetlu li ma la wax. <laughs> garab goo xam ne nit da cee mës a daanu dee su ma la ko waxee rek mooy garab gu nit mës sa xaru wala nit yëg ca garab di dagg pour ay juróom far daanu dee mhm. kon garab ga moo rey nit garab googu la xas boole ko fukki yoon nga bind xunóot adadu adadu kun nit ki bu ko lekkee laax wala lenn billaahi du ko puubee ca kaso ba ci biti la koy la koy génnee du fa demee mukk àll ci biti la koy demee àll mhm. loolu xam-xam bu leer la képp ku ko bind juróom-ñaar fukki yoon tamit. nga boole koo garab gu rëy nit nga lekk ko. sëñ bi pour ñu pour ñu yóbbu la kaso danañ daj lu ne. am na solo am na solo kooku it maye naa ko. am na solo. soo bëggee tëj ci alxuraan të ci wàllu alxuraan bindal faatiye juróom-ñaar wa in yàkkaadu juróom-ñaar laxat jaakum juróom-ñaar falaxeeg naa si bu ci ne juróom-ñaari yoon nga def ko ci sa suuf fexe ba am xasu xay. di ci naan di ci sangu të nga bët ak yibar kooku it maa leen ko may. Mhm. am na solo ah? am na solo waaw am am na solo. Mhm. wax dëgg yàlla man. Mhm. moom toog naa ku ne. dëgg la mais tey moom man dama dama yaakaar ni sax. benn rappeur toog di wax ak man. Euh, dëgg la li ma dégg tey. dëgg la wax dëgg yàlla convaincre mu yombul. dëgg la en tout cas kontaan nañ lool. dëgg la tey sax daanaka waxtaan bi. Mm-hmm. promotion la. dëgg la pare dañ koo maye parce que dañoo ñëw di maye. dëgg la parce que yonent bi neewoon na urla bi ma wala bi Chine. est-ce que. tey nag bu ñu ñëwee fii seet si la nga jël sa xam-xam. dëgg la di ko maye. Mm-hmm. donc loolu si à saluer. dëgg la ñu ngi lay wax ni franchement am nañ kontante. dëgg la dinañ bëgg nag di toog ak yow à chaque fois parce que. dëgg la des fois day jamono day toll foo xam ni. Mm-hmm. yenn jotaay yu mel nii dañ koy soxla surtout li nga doon wax sànq ci wàllu médecine bio. bio dañ boo xoolee sànq yaa ngi wax. dëgg la ci mel ni ay ndoxu siti. dëgg la yamurit. Mm-hmm. ballottement. gaaw daanu daanaka mooy feebaru Sénégal yépp kooku dinaa leen ci may tamit bu baax. ci kattan dégg léegi nag xam naa ni waaw. incha allah faaw ñuy amaat jotaay yi di ko def chaque semaine. dëgg la ñëw di la seet si. loolu am na solo bu ko defee nga xamante ni dañ koy def spécial. dëgg la émission bi ñu utal ko tur. dëgg la parce que vraiment wax dëgg yàlla waxtaan bi neex na. wala dëgg la. du tout kontaan naa ci dalal la. ma kontaan looy looy tàggatoo. jërëjëf ñi ngay tàggatoo mooy maa ngi sant ñëpp di di ñaanal site bi. Mm-hmm. di nuyu di ñaan yàlla wàcc ci réew mi jàmm. allahumma amiin waaw yàlla defal Sénégal jàmm defal ko réewu jullit yëpp. Mhm. Euh, site bii di people 221. jërëjëf yàlla na seen mbir gën a yaatu. ba fépp fu nu bëgg a àgg sunu borom may leen lu kawe seen jot. di leen xamal tamit ni leen numéro yi mi ngi noonu. képp mhm. koo xam ne bëgg nga ñu xettali la. woote ci. sëñ Cheikh Tidiane si almaxtum boo ko fekkee yoof adresse bi nekk yoof yoof laa yéen la mhm. boo ñëwee danañ la teg ci yoon jàppale la ci kattanu yàlla ci darajo yonent bi kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ayca jërë ngeen jëf jërëjëf ah, ci ànd bi nga ñu ànd ak ñun fii ci People 221